jamono ji ñu toll jamonoy kaaraange la jamonoy kaaraange la waaw faatu yu gaaw yi ngay si lu ko waral dafa am lu ko waral sacrifice yépp dafa am lu ko waral jamono ji jamonoy kaaraange la ku yebbu dug sa bopp bu baax a baax baax man mii di wax ak yéen bàyyiwuma sama bopp ginnaaw sëriñ si nag ñoo yëg seen bopp waxtuma nag taalibe yi ku si nooy bopp ñu yóbbu la dëkk bi dafa bëri féticheur yu doy waar ay waaw yu doy waar sax ay gan yu doy waar waxuma nag féticheur yu xuddab yi maanaam yi nga xam si maanaam dañuy bubboo fétiche nekk ci télévision yi di ngan-ngali waxuma ñooñu waaye dafa bëri ay gan yoo xam ne dañ leen a jëlee faneen indi leen ci biir dëkk bi pour ñuy yàq ñoo nañ leen bàyyi xel bu baax a baax a baax mën nañu toog fi ñu toog sànni waaw jamono ji daal jamonoy kaaraange la foofu daal laa laa si mën laa si mën a ko fi ma si xuus waaw macha allah waaw.